diggante président Macky Sall ak waaw ak déet dafa mel ne day di histoire bu yàgg waaw bi tribune yëglekaay ni moom sax diggante mag Mimi Touré day loolee lañ ca nemeeku nii wii nii no amul dara loo xamante ni ci seen gisante bi leeragul na ci président Macky Sall nag moom mi day dafa mel ne moom xam na lu mu bëgg waaye xam na mu koy wutee dafa mel ne kon ci yëglekaay bi groupe des médias bi bu ñu sukkandikoo mooy kii fi nekkoon njiitalu conseil économique social et environnemental kay moom la kenn mënul xam lan la bëgg lu ci mën a am laa seen kaay ne kay ca palais boobee moom rek moo fa demoon de moom Mimi Touré frustré ñi nga xamante ni gisatu ñoon seen bopp ci doxalinu njiitu réew mi ak mer guñ ko fasaloon jàppale ne am na ñeneen ñuy daagu ca palais de la république di fa jàppante ngir nag lépp ci ab dajawaat ci wetu njiitu réew mi président Macky Sall les fa yéenekaay ni moom président Macky Sall gorom bii di Adama Faye lam ko yokkoon mel ni xamee am nañu ko tontul l'info yéenekaay ni Cheikh Bakhoum daal dina cay wax de ne bu dee moral ak éthique dëgg la kii di wax ak li mu yëkkati ci kàddu nañu jàpp ne cong la yoo xamante ni dëppawul dëgg ak nit ku ànd ak xelam Las Badiane feelu ko ne day kàddu yooyee kay mu yëkkati jëmale ko ci sunu njiitu njiitalu parti bi ak coalition Benno Bokk Yaakaar bi du kàddu yu tegg diwu dëgg Aliou Dembourou Sow ne ko may leen mooy ñëw député bi ne parti bi kay moo war a jël ay matuwaayam di responsabilité am convoqué ko ci kanamu conseil de discipline moom Adama Faye moomee di rek groupe Macky Sall beneen groupe Macky Sall di Mansour fay te di wanu Ndar Géej suuf su aane na daw ndax kat Mary Teuw Niane mi ngi daw daw ñëw ci kawam suuf su aane élection locale yi jàppale ne dana saf sàpp de moom mi dogu na ci candidature am ne inarrêtable kenn mënul tere mu dal nag ci kaw Mansour Faye dagaan batu askan wi naam bu dee liggéey na kay juróom-ñaari at daañ ci xam dara ndax bu boobaa wuutu gi kay doo am coow doo am leneen waaye li coow ci xëwu Sénégal 24 heures chrono ne du lenn lu nag lenn ci yore nu njiitu réew mi nga xamante ni njabootam geeg goroom yi ña ca saf sàpp ni degee loo ci mën di dégg mooy coow li kay moo tax 24 heures chrono suñu république bi dafa mel ne lu nekk si naufrage mën a mën a luy bëgg a suux wala luy bëgg a ba ak njabootu lu leen sañ wax a jamono ji kay ci wàllum élection locale yi saf na sàpp ca Kaolack Aji Mergane Kanouté moom fësal na ab candidature ak i bëgg-bëggam Abdou Ndéné Sall ci diwaanu Tivaouane taxaw na dëgg ngir samp ndënam bokk ci jongante bokk moomeel yi waaw du moom dong de Le Quotidien yéen kaay ne ca Podor moom saf na sàpp fële ca njum moom jàpp leen rek ni eh, kii di Abdoulaye Daouda Diallo ak Cheikh Oumar Anne ña nga ca géegu politique Vox Populi nekk nekk ca langu kay yoon ga bokk na ci met babu demoon na ci kanamu ordre moom mi ginnaaw bi nga xamante ni amoon na jax-jax ak bëjoo u doxoon digganteem ak substitut procureur bu Diourbel critique yéen kaay ni jamono ji kay démb ci talaata ji de talaatay Macron dëgg la woon mel ne talaatay ndeer safoon na sap ab mbéj mu tàng jëpp la ko benn waaye def ca dërëm ga mu nekkoon ca France libération yéen kaay ni fii ci Sénégal section de recherche moom jàppale ne nag fësal nañ enquête yaa ngi xóot ci évasion di daw booy jine ci camp pénal bi loo ci mën dégg mooy am na ñaari retour parquet moom booy jine alias waaye de procureur ba ubbi na judiciaire ngir nag dëgg ñu leeral ndax dañoo xel ñaar ne day moom mii am na ko jàppal tànk ca biir ba mën a rëcc daw ñii tamit de bu ñu rëccul seen i waajur it daw it tut tànkam de mi ko doon dóore ak fiilu courant nga ma fiilu courant bu dee nag doom mu jigéen bi moom lèvre la doon brûlé os bu noonu la waaw fukki at ak dong sax la am de teg ca paaka ca wet ga waaw ki lu ko dal xaw de waaye la mu wax mooy lépp ci ak yar leen yëpp éducation ni ngay defee éducation de musiba la waaw musiba mënul weesut jaay sa bopp le soleil yéene kaay ni fës na fii ci xëbu Sénégal jàpp leen ne daal fi mu nekk nii loo ci mën di dégg mooy réseaux sociaux yi waaw ak trottoir yi waaw ak puce marketing yi <laughs> appartement yi <laughs> ci senegal ci àdduna bi lii dem mooy kawteef lii doy na waar faama ci fii sax ndax musiba naaru laay la baa loolu ngeen dégg jaa ngeen jëf ñu yéen ak jàmm